gouvernement face à la presse ñëwaat na ministère de la santé ñëwaat bi yaakaar naa beneen yoon parce que mbiru santé dafa nekk léegi centre préoccupation Sénégal question yi ma yi ma posé mën nañ ko tënk si juróomi ponk ponk bu njëkk bi wàllu euh, vaccin bi la ñaareelu ponk si test yi ak si ni ñuy fale nit ñi si domicile ci kër yi bi mooy mesure ñu jël est-ce que dañ ko jëlee noonu la wax fii ak si localité yi ñu ko jëlee mooy euh, euh, Thiès ak Dakar est-ce que yaa ngi war a war mën a bokk am na question boo xamante ne tam suñu wax deuxième vague mooy deuxième vague bi est-ce que réellement donc am nañu matukaay pour taxaw ak euh, question boo xamante ne mu ngi jëm si feebar bi daloon na nappkat yi ñu bëgg a xam fan lañ toll si xam lan moo ko waral ma jëm si réponse très rapidement tënk ko si wolof si wàllu vaccin ñu wax ne vaccin bi àdduna bépp koy xaar ni ko àdduna bépp di xaaree noonu la ko Sénégal di xaaree parce que dañu gëm ne mooy li xamante ne moom mooy wàññi feebar bi vaccin bi noonu moo koy wàññi génn ko bon la suñu réew dafa war a xeex pour am si am si lu doy moo tax depuis le début bi ñu comprendre loolu la ñu bokk si benn mbootaay mbootaay boo xamante ne téeméeri dëkk ak juróom-ñaar ñoo ko bokk ñooñu dañu boole suñu doole pour bés bu vaccin bi ñëwee. yeneen réew yi am alal bañ ko jël nit ñu topp kon nag wax benn alliance de initiative commerce alliance boobu juróom fukki réew ak juróom benn ñoo ci nekk ay réew yoo xamante ne seen doole dafa yemamaay Sénégal bokk si kon nag ñu ngi liggéey si initiative boobu mën naa wax ne sax presque initiative boobu li si des bëriwul ñu ngi paree donc sottal mbir mi pour que fekk premier trimestre bi ñu mën ñu wax ban vaccin la ñu homologué pour que ñun ñu mën ko song pour que mu mën a teew suñu réew mais Sénégal ci xarañu président de la République ak si pas-pasam ak si bëgg Sénégal bañ a nekk mukk mu si ñàkk yi bu si initiative bi ngeen nekk. mooy kuréel bi ngeen bokk ñeneen na ngeen fexe ba Sénégal taxawal mbiru boppam ba jël si alal boppam ba jëndal boppam loo xamante ne day ñëw yokku si li xamante ne dañ ko bokk ñëpp bon nag am nañ li bokk ñëpp ba pare président de la république nañu nañu wuti loo xamante ne dañ dañ ko suñu tool yi ñun ñu mën a ko suñu loolu engagement chef de l'État ak détermination ak bëgg Sénégal ba ñu nekk gannaaw moo ñu ko may. bon dëkk vaccin bi mooy am yaakaar lool fi may wax ak yéen actuellement maa ngi bàyyi ministère comité wax ne ñu ko indil ko document bi rapidement te document boobu moo koy indil alam la comité boobu ñu ko war a finaliser kon nag ñu xam ne ñun suñu stratégie stratégie bu wóor la mën naa am ba tey dafa xaw a teel parce que ma joxe ko mu loo ko génne fii mais li ñu mën a retenir dèjà mu génn si discours am mooy vaccin bi bu teewee danañu vacciner personnel de santé yi mooy ñu nekk si kër docteur parce que ñoom ñooy gën a contacté aussi ñu xamante ne aussi dañoo am plus de soixante ans nekk ay mag dañu seetlu ne ñu faatu ñu si bëri si ñoom lañ nekk ñooñu itam seen seet dina ñëw dañ leen vacciner mu gën a gaaw ñeneen ñi xamante ne aussi il faut que ñu vacciné leen mooy ñi am ay comorbidité yaram te bu virus bi duggee seen yaram dafa leen di faagagal parce que seetlu nañ ne ak diabète bu leen feebar bu duggee souvent dafa leen di yóbbu kon ñooñu dañuy gaaw jàppale leen vacciné leen mais du ñu am foofu parce que chef de l'État dafa nekk si politique boo xamante ne aar Sénégal yëpp dafa wala Sénégal dana mettre en place dispositif de campagne de vaccination bu wér pour que donc population ñu mën ko donc ñàkk si ni mu mucc ayib ak képp koo xamante ne dañ la war a vacciner document boobu incha allah dès mercredi danaa ko communiquer président de la république du conseil des